fileeg fukki fan ci weeru mai atum 2024 jamono ji nag ñoom kilifa yu Sénégal bëgg nañoo dugal loxab armée bi nag ci séddaleem jiw gi waaye amal ab audit jëm ci programme bi nga xam ne rek moo ñeel nañu doon séddalee lii di matériel yi l'observateur fellu ko ne conseil interministériel bañ doon amal nag jëm ci wàllu campagne agricole bi nag Sonko jamono ji ma nga jël ay matukaayam nag jëm ci digitalisation ñeel ni ñuy séddalee lii di jiw gi yokku itam lu jëm ci wàllu kaaraange gi jaarale ko ci taxawaayu force de défense et sécurité bu ko defee ñu mën am mucc ayib loolee nag la yëglekaay bi Vox Populi xëyee niki tey jii moom itam nag addu jëmale ci campagne agricole bu atum 2024 ak conclusion yi nga xam ne rek moo tukkee ci fin de mission bu Sénégal yéenekaay bi ne état bi jamono ji nag génnee na budget bu toll ci 120 milliards xamle itam na nag dina am rupture bu toll ci milliards mu di ay dépenses yoo xam ne rek jot nañu koo dajale ñaar fukki mesure ak ñett nag moom premier ministre Ousmane Sonko jël na ko sàkku itam ci armée bi nag ngir ñu daal di taxaw ba lépp loo xam ne rek yi nga xam ne rek ñoo ko yellool lu ni mel nag daan ci boole ay daan ci képp koo xam ne rek ma nga cay amal ay détournement lu jëm ci wàllu souveraineté alimentaire bi nga xam ne rek moom la ñuy àddu jëmale nag jàpp nañ ne fukki ponk yi rek moo war a doon priorité bokk na ci wàllu mbay mi nag ñu daal di ciy taxaw ba mën a suqali réewu Sénégal création emploi waaye xeex lu jëm ci wàllum immigration irrégulière naka noonu itam nag fexe ba wàllu ndóol gi ñu daal di ciy wut ay saafara enquête yëglekaay fellu ko ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay armé ay projet ma mucc ayib te ànd ak leeraange moom premier ministre nag fas naa audité nag programme bi nga xam ne rek moo jëm ci ni ñu doon séddalee nag lii nga xam ne moo di matériel yi ca Sismar ab subvention bu toll ci milliards nag moom la ñu fas yéene dugal ren ji ci campagne de production agricole atum deux mille vingt quatre Sud Quotidien ne campagne bi le nag état bu Sénégal ma ngay xam ne ni nag rupture dëggantaan daañu ko ci amal ay mesures yu am solo jël nañu ko démb xam ne rek ca lañ doon vingt milliards yéeni kaay fas yéene nañu ko cee dugal bor yi nga xam ne rek ñii di opérateurs yi amoon nañ ko ci campagne ba 2023 leen ko fay ci diggante juróom benn jàpp fukki fan ci weeru mai évidence yëglikaay ne Ousmane Sonko koy jamono ci nag ma ngay dagg bopp dealer yi nga xam ne rek ñoo daan bànneexu ci kaw baykat yi Le Quotidien yëglikaay moom addu jëmale tey jii ci programme yi nga xam ne rek moom la fas yéene wéyal atum jàpp 2026 FMI fii ci réew Sénégal ñaar fukki fan ci weeru avril ba ñetti fan ci weeru mai Diomaye ak Sonko nag ña ngay engagé wu ngir wéyal lii di PSE bi li nga xam ne nag moo tënk bi le programme bokk na ci seen ay objectif FMI nag jamono ji ma nga exiger nag ñu daal di saytuwaat nag giri tarifaire bi nga xam ne nag moo soxal wàllu électricité bi bu ko defee nag njaboot gi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mën caa jotee loolee di courant bi tribune yëglekaay xëy tey jii nag ci li nga xam ne rek mooy tukki mu jaarul yoon bi yéenekaay lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom ay doomu aadama teg nañu leen loxo ñaar fukk yaak juróom-benn ay soxna lañu juróom-benn ya ay tuut tànk libération felu ko ne barsa wala barsàq nag phénomène bi ma ngay gën di jéggi doyo boole kook ay bakkan yoo xam ne rek ña ngay des ci géej gi yéenekaay bi ne ci diiru benn ayu bés nag ab gaal tere na ci waaxu Saint-Louis nag ba ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ci bés boobee itam nag gis nañu beneen ab boo xam ne rek dafa yab ay migrants yoo xam ne rek dañoo teer ci waaxu gànjool yi toll nañ ci ñaar téeméer ak benn ci ay doomu aadama yoo xam ne rek marine bi daat nañ leen di dimbali waa duwaan ci jamono joojee nag nag teg loxo ab gaal goo xam ne rek yeboon na lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom ci ay candidat yoo xam ne rek ñu ngi bàyyeekoo woon ci tëngeej jeexale yëglekaay yi ak lakk gu metti gi nga xam ne rek am na démb ca patisen yéenekaay yu bëree bëri dellu siwaat nañ ci tey jii mu am dégâts matériel bu jéggi dayo boo xam ne rek nemmeeku nañ ko fa waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi nag amut kenn ku ci ñàkk bakkanam donte ni perte yi moom foo ko natt rek weesu na ko mbokk yi li gënoon a fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may revue de presse. Waaye seen